ndax daal lu neex na ko ñefe ba daal borom sañ-sañ yaa joxoon ngeeg tambalil ak cawarte ak Nescafé ayca mi ngi noonu dañ koy dalal moom itam moom mi dabu si Binta Ba pour la première partie euh, mu fasciné itam dikk ak ñun ci waxtaanu wàllu koom-koomu réew mi fu mu ci toll ak lan la ñu mën a góorgóorlu rek ngir mën a yëkkatiwaat rek wàllum koom-koom gi noo def. voilà Asma maa ngi lay ziar bu baax a baax mbaa yaa ngi am jàmm. <laughs> Louisa maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu professeur di nuyu coach naka noonu itam Asma di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan. macha allah kon mi ngi noonu Aïcha euh, dañuy euh, daal di euh, dem rek dugg ci suñu ab éphéméride ah bu ko defee rek ñu daal di xam rek ci bés bi vous savez nous sommes quand le 27 avril 2021 n'est-ce pas professeur mi ngi noonu dañuy euh, tàbbi rek euh, ci euh, bés yi MD bu fekkee ni pare na rek ñu daal di dem le 27 avril ñu tàmbale ko rek ci 1998 fële ca Égypte ci la ñu ñàkkoon kii di Cheikh Mohamed Nazir Ibrahima Niass directeur de l'Institut El Hadj Abdoulaye Niass de Kaolack mu nekkoon ki nga xamante ni ñun ñëpp dañ ko daan seetaan RTS ca aji mm-hmm. ay jamono wala sax nag ay professeur dinañ ci gën a xam dara euh, ñoom itam ndeysaan Mohamed Nazir Niass nekkoon doom ca Mambay nduroo nag bàyyam lool ndeysaan te bëgg alxuraan mokkal ko te bu daan tari di jooyloo ñu bëri euh, fale ca Égypte lañ ko ñàkkee woon euh, ca bés bii nii ci atum 1998 professeur Danfakha oui un grand homme c'est-à-dire que man xaw ma ko fii Sénégal mm-hmm. benn benn jour dama doon waxtaan ak benn Syrien Mm-hmm. moom a commencé di ma ko di ma wax ak mbiram. Mm-hmm. alors ci laa soog a def ay recherche xam ne moom mooy kan. Mm-hmm. donc c'est vraiment quelqu'un boo xam ne euh, jalooreem dafa dépassé sunu contrées yi dafa dépassé woon Afrique. ndax xam-xamam. ndax bëggu diinam ak euh, justement humanité am ça c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important et que nous avons perdu également yàlla ko yàlla euh, Eh, xare àjjana yokk leeram ci tas ñu ci barkeem professeur loolu mu am solo ndaxte moom bokk na ci ñi liggéey l'islam mhm. fële ci diwaanu Gambie Sierra eh, Leone Nigeria itam kon nag eh, mu ubbi ay bërëb bërëbu jàng jàngalekatu alxuraan yu bëri mhm. wala jàngkatu alxuraan bu bëri loolu noon mag yi ñun dañu am chance nañ ñaan yàlla rek am chance su xàmmee itam li nga xamante ni moom la ñu am ndaxte uude moom noonu la gisee n'est-ce pas Binta Ba moom la lay oolee kon nag il faut ñu góorgóorlu xam ñun ku ñu doon ba tax ne ku ñëw rek dina xam ñun dina xam ni que ñun dañoo xam ki ñu doon ba tax ne eh, du ñu mën a nax ca dara dara mm. dara dara yal na yàlla yokk leeram waaye te tas ñu ci barkeem mm. ñu desandi ba tey ci ab bés bi waaye ci tàbbi ci année 2017 eh, mi ngi noonu ca 27 avril ouverture à Dakar des travaux de la 22e conférence des directeurs des douanes des régions euh, d'Afrique de l'Ouest et justement du centre professeur Danfara première dame euh, hmm. mu nekkoon loo xamante ni en 2017 justement lu ñu rafetlu la mais ba tey douane bi ak mbir bi mi ngi am problème ba tey est-ce que am na jeexital yu baax yu mu ci def. waaw mais xam nga euh, douane am na problème mais il faut que ñu nangu ne euh, douanier yi contribution maanaam lu ñu def ci koom-koom bi. Hmm. mais c'est extraordinaire. parce que ñoom grâce à ñoom euh, affaire yu bari duggul suñu réew. Mm-hmm. mais surtout grâce ñoom ak taxes yi ñu euh, collecté dina permettre hôpitaux yi mun a fonctionner écoles yi mun na fonctionner ngàcce ngaalama duwaañ sénégalaise euh, problème nag am na mais problème moom terewul suñu dëkk ba léegi Sénégal musul musul toog. Mhm. benn weer ne du ma mën a fay samay fonctionnaires yi. Mhm. Eh, donc am na yoo xam ne vraiment ñoom gàcce ngaalama c'est-à-dire que souvent dañu leen euh, dañ leen critiquer tellement que <laughs> dañuy fàtte ne eh, bu ñu bu ñu toog rek banku seen lox eh, mhm. lambay ñaaw. donc vraiment di rafetul loolu c'était important aussi que ñun suñu douane yi ñu bokk ci maanaam euh, euh, dans le concert des nations bokk ak seen seen seen morom Euh, douanier yi nekk ci dëkk yi pour mun a weccante xalaat euh, pour mun a justement gën a rafetal seen liggéey. Machallah, jugé en appel toujours en 2017 pour crime contre l'humanité euh, devant euh, un tribunal spécial à Dakar, l'ancien président tchadien Hissène Habré euh, est définitivement condamné à la prison à perpétuité euh, fii lañ ko amaloon mu nekk loo xamante ni yaakaar naa ni suñu diggante ak euh, Tchad waroon na gën a ah mënoon nañ ko fi bañ atte àtte ndaxte ku nekk da ngay natt ci sa bopp di xool ci sa bopp euh, li ci kanam nag raw li gët dëgg gi yàlla xam fu mu féete te yàgg yàgg dina feeñ du dëgg. Mm-hmm. et loolu man dama koy ñaawlu toujours. Mm-hmm. gàcce la ci Sénégal. Mm-hmm. cest à jël nit ñuy xeex ñu nekk ci guerre nga ne bàyyi leen guerre pour ñu bàyyi guerre nga jël kenn ci ñoom. ne ko yow ñëwal fii ma denc la sama réew mhm. ay nasaraan jógee foofu def seeni jéego pour toroxal ko sa réew mhm. du dëgg du yoon waxuma nag man waxuma lu mu def lu ñaaw kenn andul ci loolu mais Sénégal lu mu defoon mhm. euh, lu baax la woon lu rafet la woon parce que dañoo arrêté woon guerre bi su continuer woon mu gën a mu gën a métti yi donc dañoo arrêté woon loolu engagé suñu honneur ak suñu dignité le fait nag ñu jël kooku di ko jugé suñu dëkk trahison la dañu trahir tra kenn trahirul sunu bopp la ñu trahir parce que nit dafa am kàddu. nit dafay am kàddu te góor ca wax ja du dëgg kon nag am na loo xamante ni président Abdoulaye Wade mi fi nekkoon te euh, sa euh, sàkk woon ko euh, téye na ko ba mu rafet mm-hmm. je pense que boo ànd ak sa leader politique ba mu yer la tàggat la n'est-ce pas coach mm-hmm. ci mbir bés bu fi jugee nga ne fii ci place am lii la war rek ci wormal seen àndi démb ak coloré mooy nekkoon lépp lu nga xamante ni mooy lu baax mu sàkk woon ko ngir Sénégal raw ci kanam da nga wëyal waaye bu nasaraan si ñëwee jaar si ginnaaw nga daal dëppaat joxaat carte gi dafay mel ni kon ab war ñaar yoon mën nañu wax ni ni am na ndaxte war ci askan bi am na waaye war itam ci diggante ki la yar ba may la chance opportunité nga toog chaise bi nga toog tey am na itam. olof dafa wax ne dige bor la. ñàkk ko jëfe war la. moo ko jëfe di gor. ci yàlla dañu diglanteeg suñu bopp surtout ñun africains yi nañu bàyyiwaat xel Idriss Déby Itno a été tué sur le champ. Mm-hmm. chef de guerre chef d' état. Mm-hmm. chef suprême des armées. soldats yu ndaw yi sax pour ñu rey la ñi ko jege noonu day jafe. Mhm. mais bu ñu rey Idriss euh, Idriss Déby Itno rek il faut que africain yeewaat te Tchad moo nekkoon bouclier bi mujj pour que ñu mën a jege ñu ñun ñi mhm. nañu ñaan jàmm. sëñ mhm. Tuubaa nee na. lu dul jàmm jàmm ko gën. jàmm gën fii ak fa ñu jëm. bi nga ko laajee lu gën mu ne yonent lu gën yonent yi mu ne lekk ñu ne ko lu gën lekk mu ne jàmm. nañu bàyyi suñu xel te moytu yu ndaw ndawaan yi di am ñu ñu rax ñu ngi fi te ñooñu bouclier lañu woon nañu nañu suuxat jàmm gi nga defe ne benn porox ndolu rek lii amoon nit ñi génn jeunesse bi du ñun rek de mu neex mu naqari nee nañ dañ ñu rax mais am na ñoo xam ne ci loolu la ñuy profité ñi ñuy rax te nañu ñaan jàmm ci Afrique moo nekkoon dernier Sénégal rek macha allah yàlla na yàlla fal cat mooy benn pays africain de l'ouest bi des boo xam ne ñooñu di yàq réew yi dugguñ fi. Mm-hmm. càdd moo nekkoon barrière bi bënn nañ ko jeex na fan la ñu jëm. yàlla nañu yàlla defal jàmm. allahumma amiin yaa rabbi jàmm jooju ci la ñuy daal di ndar keppe li nga xamante ni professeur Danfara Luisa Binta moo di suñu ab éphéméride dafay baax ñu fàttali li nga xamante ni moom moo fi xewoon ba tax ne xëy na dinañ góorgóorlu ba du fi xewati. Mm. du dëgg nañu sàkku jàmm nañu liggéeyal jàmm nañu weggante suñu biir nañu joxante cër c'est très important c'est fondamental bu dul loolu rek ah, weggante bu fu mu amul rek musiba naaru laay bi jib dundu gis moo fay am. ngi noonu di jaajëfal bu baax a baax toute l'équipe pour justement c'est un sans rappel on fait place à tàggat yaram maanaam fitness en compagnie de coach Moussa ce sera tout de suite voilà euh, coach Moussa dañu koy defee fitness kon ñu daal di la jox lengee rek ñu des ba tey ci mouvement sous Ramadan le sport avec le Ramadan. situation oblige on peut pas aller plus vite que le temps soit tu avec wala nga nekk ci ginnaawam rek wala nga aligné ak moom. Mhm. donc lépp loo gis ak jamono la temps la waxtu la ànd ak moom lu jëm ci wàllu tàggat jaram il faut que ñu si insister pour nit ñi xam ban moment nga ko war def kañ nga ko war def ak naka nga ko. war a defee rawatina ci weeru koor gi ñu nekk nii mm-hmm. donc mu doon ay moments yoo xam ne des fois day compliqué ñuy moytu hypoglycémie ñuy moytu crise cardiaque yi ñuy moytu di moytu di moytu liñ ci mën a moytu bari na looloo tax à chaque fois dañ leen indil quelques exercices wala quelques mouvements yi ngeen xam ne di ngeen ci mën a maintenir su ngeen demee à la salle wala bu ngeen nekkee chez a la maison dans vos bureaux dans les salons fépp fu waay mën a nekk rek pour am temps bu ndaw juste avant la rupture wala quelques heures après la boo amee une très bonne digestion après alimentation saine et équilibrée donc looloo tax tey ñu concocté leen encore quelques mouvements yoo xam ne boo demee à la salle mën nga ko def soo nekkee sa kër comme on dit boo demee nga ndogu ba pare wala balaa ngay ndogu donc sur ce ñu ànd ak magie waa Régie ñu xool les exercices du jours après ñu delluwaat sur le plateau. nga ne yow ni nga yëkkatee baar bi ragaloo loolu. voilà c'est le ramadan on est obligé di def ay mouvement statistique <laughs> ay mouvement statistique def ci baax parce que boo wooree ba ngoon nekk di tëli tëli di daw di jéggi ko wàcc te fekkente ne yow digéré goo wala instant boobu ndogoo goo instant boobu système nerveux beeg euh, yaram bi yëpp amatul lu muy joxe doo gis lu dul bu la binda ba waxee rek nga mer. instant bu énervement da ay yomb rawatina yi nga xam ne biir bi amul benn euh, euh, amul benn alimentation muscles yi régénéré wu ñu dara amul donc préféré nañ nga def ci ay mouvements statistiques tout ce qui est blocage wala des mouvements neutres Euh, voilà des mouvements statistiques comme ni mu permettre la nga mën a téye liggéey ak le pois du corps pour que bañ a yëngal nga mu nekk problème gastrique ak yooyu. Mhm. donc mën nga si boole tuuti ay mouvements yoo xam ne si ay le poids du corps boole kook ay engins wala lu jëm ci wàllu bâton bar wala haltère wala ay bouteilles yi nga xam ne moom nga am ci biir kër gi def si les mêmes mouvements. pour mu permettre la nga garder ce muscle yi parce que boo toogee pendant un mois ferme après la reprise dafay difficile tu reprends à zéro comme si que ngay reprendre hivernal bu bees après vingt 21 de jour tout sportif war nga def beneen hivernal post hivernal bu bees boo xam ne dangay defaat un début pour commencer waat donc loolu day indi retard mais exercice yi du metti c'est des petites répétitions entre six huit à douze répétitions et timing bi dafay dafay dafay gudd pour la récupération de trois minutes donc ainsi de suite ainsi de suite mais juste à trente minutes avant la coupure wala une heure ou deux heures après la coupure. mi ngi noonu daal kon daal te tàggat yaram gi démb dama la tutoyé bu ndaw dama la may daal sama puissance waaw. bal naa la. ah c'était bien professeur. c'est normal. Bah, la voilà. femme est plus puissante que l'homme homme. loolu la yàlla ah, loolu la yàlla dogal loolu mënuñ ci dara. <laughs> door na ma marto 2-0. loolu la yàlla dogal bi ah? boo doon yegg ci cappaandaw ba sax xam nga ñoom ñooy gagné toujours jigéen ñooy gagné waaw nañ ko écho yàlla moo defal loolu jigéen. <laughs> éco, éco. <laughs> Machallah, en tout cas, coach Moussa, merci beaucoup pour Mais cette de rien, astuce moi, non, du jour. Merci beaucoup. Ah, ce suis avec un immense plaisir. Plaisir partagé. Ah bah voilà, mi ngi noonu Aïcha euh, dañuy tàbbi ci euh, li nga xamante ni moom moo di économie duggee ko Binta Ba ginnaaw bi ñu tàggatee yaram ba pare première dame lu muy reetaan dafa jongoma rek nag xam nga jongoma reetaan ñaw ayca <laughs> mi ngi noonu euh, pour notre information justement euh, lii la del commu communiqué ak ñun ñu ne euh, président Abdoulaye Wade ci li nga xamante ni moom moo di procès wu Hissène Habré bi moom moo joxoon accord am ngir ñu amal ko fi Sénégal te itam président Macky Sall moom mënu ko woon rediscuter waat pour éviter loolu ndaxte Union africaine moom moo ko décidé woon kon nag mi ngi noonu. voilà waaw ah? ñàkk ko jëfe war la boo ko defee di gor. Ah? kon ñoom li ñu def ni gor. loolu waaw mais même boo amee éco dugg nañ ci loo xam ne amul am na loo xam ne amul dellu ginnaaw. Mm-hmm. état continuité la. Mm-hmm. voilà ndeysaan mi ngi mais état bu dee continuité am na lu bari dañ koy continuer. ah waaw ah. maanaam dañuy continuer par exemple di respecter euh, l'autorité des anciens ministres de la république. mais léegi état boobu. nekkatu fa parce que loolu li loolu boo gisee mu am rek. Hmm. politique politicienne moo dugg. voilà donc euh, ñu dugal ko ci benn dossier bi bàyyi bañ ko dugal ci beneen non je pense que loolu c'est des prétextes. président nee nañ Sénégal huit ans. mu koy euh, bàggante ci discussion. non Ablaye ne voulait pas bëggul bu. bëggul woon dañ te bu fi nekkoon sax cent du du ñu mus a <laughs> jugé Hissène Habré loolu waxu. Euh, couloir kon mënoon continuer naxante bi na Wade. mais waruñu woon nangu sax tubaab bi di ñu imposer loolu. xam nga loolu lañu waruñu woon nangu ba tubaab ñu imposer loolu. parce que c'était nous dans nous mënoon nañ ko régler ci beneen façon ba ba muy yegg foofu. Ablaye du ko def sax. c'est que moo noonu daf lay wax waaw mais am na lu muy lu muy def. a beaucoup am na loo xam ne mënuñ ci yegg sax mais y' a trop de non-dits. kon maanaam pédagogie bi maître Abdoulaye Wade amoon euh, ngir euh, ak. Euh, nasaraan yi nasaraan si. xëy na moom la <laughs> président dese wala talu ko parce que. jeune la fa la nit ñi dafa am defar réew mi ba leen jàmm. Abdoulaye Abdoulaye révolutionnaire la. Mhm. mais comme benn taximan di ma ko waxee révolutionnaire bu nëbbatu la. Mhm. moom dafay avancer ñaari pa mhm. delloo benn pa avancé waat ñaari pas delloowaat benn pas. Mhm. loolu ñi ñi ko jàng. 12 mhm. ans yi loolu la doon def ak nasaraan yi mais am na ay ay succès yu bari ci ñoom. parfait buy dal sa kaw day métti. voilà tout à ma ne ndaw sax nag diggante moo a bañeen mhm. li doon def tey jii mag moo ko war a gënoon garaaw sax parce que. Euh, jeune la et xale la et que euh, dans le monde de de la révolution donc. ku la abal ay bëtam bëgg ngay xool foofu te comme li nga wax euh, Asma accord yi. dafa mës a am. Mhm. Euh, et les accords demeurent. Mhm. mais euh, euh, comme niñ koy waxee rek du lépp ngay nangu. Mhm. du lépp ngay nangu et comme li ngay wax naxante contourner contournement dafa baax ci lépp loo gis waaye daal comme li ngay wax rek c'est bon que nit ñi di def relais yi pour que. justement ñu édifier euh, ñu euh, édifier parce que loolu dafay gën a yaatal suñu xalaat ci mbir mi loolu mooy importance éphéméride sax nag justement mi ngi noonu ba tey rek ñuy wax ne euh, président Abdoulaye Wade moom dafa nangoon condition bi mu posé woon c'est encore une forme d'astuce pour juste éviter le débat. Mm. parce que bu ñu nee caution bi na ko Union africaine fay pour ñu amal fii <laughs> procès bi c'est une sorte de bâton dans les roues. pour moo la gën a xam ne Union africaine amul xaalis boobu. voilà c'était voilà. ça <laughs> justement mi ngi noonu daal ko jël leen cours yu baax yi. bàyyi leen naloo classe di mel ni man. <laughs> Aïcha mi ngi noonu dañuy tàbbi ci Binta Ba xool wàllum koom-koomu réew mi fuñ ci toll si Aïcha Bintaba, pour parler économie aujourd'hui, focus sur le conseil présidentiel, sur l'emploi des jeunes, justement. En bref, actualité économique aussi euh, de quelques pays. On fera le tour. voilà Asma ni nga ko waxee noonu la ginnaaw nag ba ñu amalee euh, benn lël boo xamante ne li ko sabab mooy fexe ba ndaw Sénégal am liggéey nag président Macky Sall yëkkati ci ay conclusion yoo xamante ne am na as tuur rek boo xamante ne cof nañ ko ci euh, cat bi nag mooy waxu ko ci kàllaamay mais ci nasaraan la ko dinañ leen koy jukkeel bu élément bi yembee dañ ciy ànd ak tonton Maba ak MD dem jëli ko desiwaat léegi léegi. Je valide le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, appelé aussi Xëyu Ndaw ñi. Ce programme qui a été présenté sous réserve des compléments et précisions. Et ces réserves seront et observations pertinentes qui ont été soulevées par les participants seront intégrées à ce programme. J'instruis à cet égard le gouvernement à finaliser le dit programme avant le 30 avril 2021. Deuxièmement, le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour le recrutement des 65 000 jeunes à partir du mois de mai, en veillant aux exigences d'inclusion et d'équité territoriale. Je l'ai dit, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sera contribution en tenant dûment compte des spécificités et des potentialités de chaque terroir. Troisièmement, le ministre chargé de la formation professionnelle, qui est en même temps le ministre de l'Emploi, poursuivra en relation avec le ministre en charge des Finances, le ministre de l'Économie, le projet de construction des centres de formation professionnelle à l'échelle des départements. Alors, j'avais dit en introduction, les 15 vont démarrer, mais en fait, les 45 vont démarrer. 45 moins 3 qui existent déjà. Puisqu'en réalité, nous avons deux pour 23 centres et l'autre pour 15. Bon, dans le

voilà Asma ni nga ko waxee noonu la njiitu réew bu Sénégal nag validé li nga xamante ne mooy programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes ñu tuddee ko xëyu ndaw yi lim ci wax nag nee na balaa le 30 avril rek bi ñu nekk dina fexe ba gouvernement bi ñu finaliser boobu le projet leneen li nga xamante ne itam njiitu réew bi wax na ko nee na si 65 000 65 000 jeunes yi nga xamante ne namm nañ leen recruter recrutement yi dina door euh, niki mois de mai dañuy tàllalaat micro kenn ki nga xamante ne xam-xamam màcc na jëm ci wàll wi muy docteur Mor sama kenn dootu ko présenté à chaque fois dañuy ànd ak moom mu ñuy décrypter yenn message yi nga xamante ne xëy na day ëlëm suñu xel dañuy dem déglu morga sama moom naka la ko gisee ñu desiwaat léegi léegi. Euh, waaw euh, conseil présidentiel sur l'emploi ci borom xëy xëy ndaw yi euh, setaan nañ ko de bu baax ak beaucoup d'intérêt de gis nañ mesure aussi yu yu am solo yi président jël notamment ci mbirum financement des jeunes ak enveloppe bi nga xam ne bëgg nañ ko débloqué mu war a tàmbale ren ji ba feeg ñetti at yi di ñëw mu nekk quatre cent cinquante milliards maanaam ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards yëpp ñu war ko jëmale ci mbirum xëy ndaw yi mu nekk financement mu nekk ci ci ci formation bi et tout yooyu yëpp lu am solo la ndax parfois aussi am na yenn domaine yi boo ci waree dugg rek dafa laaj ñu tàggat la tàggat bi la ci am solo trop trop sinon euh, boo ci duggee tamit boo moytu doo ci am succès comme ni nga koy xaaree euh, waaw yooyu yëpp daal gis nañ ko waaye nag euh, li li ñu war a jàpp toujours mooy nañ mbirum xëy moom lekk loo xam ne da ngay da ngay yeewu rek la ñetti ko sotti même réew yu am doole problème boobu ñu ngi am toujours rawatina ñu réew yi nga xam ne réew ñàkk koom lañ moo tax li ma jàpp mooy nañu xam ne d' abord c' est un problème structurel et par ailleurs boo ko waree réglé wala boo ci bëggee def jéego bu am solo taxaw gëstu la di ci konne di ci xalaat di di di di génn mooy aussi di ko jëmale ci financement di ko ci encadrement bi euh, pour les jeunes xam ne am nañ ay idées loolu am na solo mais surtout li ñu war a li ñu war a si euh, gën a bàyyi xel également euh, mooy pour xëy yi nga xamante ni dafa de xëy am solo yu durable kooku aussi ñu gën a orienté euh, yenn financement aussi wax yenn mooy ci affaire industrialisation yi maanaam la la la la la la transformation kooku aussi am na solo trop waruñu ko mën a négliger bref en tout cas posé na un acte léegi on va voir un peu voilà est-ce que Euh, les décisions prises seront exécutées ndax décision yi mu jël ndax dañ ko mën a exécuter kon nu ko bëggee xëy na moom dana ci na ko surveiller boppam bu baax a baax ndax parfois aussi foofu mbir yi dafay xaw a soxla tuuti. Aïcha mi ngi noonu Mor Gassama nekk expert euh, te ñun ñu wóolu ko lool wóolu xam-xamam kon nag expertise mu ci mën a décrire rek wala euh, décrypter il faw ñu euh, nangul ko ko kon président de la république fii la tool ak gune yi je pense que bu ñu naan naam dafa wéet wéetatul kat ndaxte ku nekk ngi génn di wax Bougane Gueye Dany ngi génn di ko wax mm-hmm. Hadj Mansour a ngi génn di ko junj El Hadj Ahmed Aïdara ngi génn di ko dund junj Sonko mi ngi génn di voilà Asma gis nga conseil bi mu amee ba léegi les réactions ça fuse de partout gis nañ euh, sociologue boobu nga xamante ne mooy Aly Khoudia Diaw d'ailleurs sax waroon nañ ko am mais contrainte de temps tax ñëw fi teew fi donc ak euh, prési président euh, Sonko gis nañ itam président Bougane li mu ci wax nee na ko juste président de parti li ñu li xëy na li ñu seen seen parti bi moo ñuy yóbbaale donc Asma dégg nañ li nga xamante ne président Bougane ne wax na ko ko nee na ko loo deful ci neuf ans mënoo ko def ci trois ans ñeneen ak ñeneen xam naa réaction yi dina gën a bëri mais lépp lu ci mënti am rek dinañ ko baaxee téléspectateurs yi alors Asma Mor Gassama moom dafa jàpp ne il faut formation am bu ko defee ñu tàggat ndaw yi ñu mën a am lu ñu téye mais itam industrialisation comme ni koy waxee il faut ñu fe fexe xeex li nga xamante ne moo di exode rural jeune bu nekk nga mën ko téye fa nga nekk te lool nag dafa ay usine ñu mën ci liggéey point bi mu jeexalee rek Asma moo di puisque euh, Macky le président Macky Sall dafa posé nag acte bu fort déjà ci lëlëm bi nga xamante xamante ne def na ko buñ ko critiquer nañ ko mooy tuuti bu ko defee ñu seetlu bu amee loo xamante ne nii teeyaat na suñu xel rek ñu ñu ñëwaat à la charge. il faut savoir raison garder et laisser le le le, le process euh, suivre son cours no nag am na ñuy poser question naan depuis neuf ans limite il a oublié la jeunesse pourtant il est venu au pouvoir avec des promesses pour la jeunesse aujourd'hui est-ce que euh, il serait temps je dis que tant qu'on rattrape le tir c'est bon professeur Euh, euh, président Amérique ñaata at lay def du quatre ans la. Ah. donc trois ans yi lu mu lu lu mu ko neex war na ko man a def. te muy dëgg du problème délai du problème ah. ay décision. il veut bien su buggee Sénégal mën na su muy wax. nga ne ma. mais bien sûr. ay décision day caxaan. c' est des décisions à suivi ah. non c' est des décisions ne yooyu boo nekkee de la République nga def ko. c' est comme c' est comme vous dites de l' état. keneen bu ñëwee il est obligé topp yoon boobu. par force mais day fekk nga am équipe non mais dans ce pays on a un problème de suivi. c'est vrai dans ah. toute chose non c'est vrai. moo tax ma ne liggéey ba am à l'étranger deux fois trois fois plus la ñu amul fii te loolu la ñu war a am. le président pour prendre les bonnes décisions. oui c'est ça bonne décision mooy lal fexeel ba am une équipe qui travaille. Mhm. loolu c'est pas c'est pas compliqué. moi euh, cinq jours ci année bi ouais. Mhm. même comportement bi lay am toujours day ñëw léegi loolu la nit ki kii si a am le président ne peut pas être partout je soo jëlee koo xamante ne da nga ko fa teg te sens de la responsabilité amu ko mhm. mais bi di doxee mais am na ñuy wax ne nag tamit président dañuy ñëw proposer ko mu jig ji say du mooy par moment il arriverait que qu'il soit réfractaire à certaines idées ou certaines idéologies c'est un problème certes maintenant la décision reste à lui parce qu'il est le chef suprême de l'État mm. foofu la nit ñi di wutee problème management la c'est-à-dire que soit tu es un bon manager tu es à l'écoute de certaines personnes et que di nga jël en compte ces ces yenn décisions yi wala rek tu tu tu agis de façon narcissique et que yow sa bopp rek yow li nga li nga décidé moom mooy Luisa bu ñu fàtte ne président de la République ingénieur la aussi oui non c'est important c'est-à-dire que ingénieur en général ñoom dañu am seen plan pour ñu changer ko yombul. c'est pas comme un avocat wala un littéraire ñoom bu ñu bu affaire ngelaw bi ñëw rek ñu ñu changer donc loolu peut-être qualité am la. moo tax Asma ngelaw gi dañuy yóbbu rek kon ñu itam ñu waxtaanee leneen dañuy dem la Alioune Badara Sonko moom moo ñu nafaral actualité yi phare de la semaine. Euh, waaw. Euh, ministre bu ñu denk lépp lu jëm ci wàllu napp gi di Alioune Ndoye moom nag ci dimaas gi soloon na dàllam dem seeti ñi nga xamante ne ñoo nekk port autonome de Dakar visite bi nag li ko taxoon jóg mooy. lu bëri ci ay navire bu ñuy ñëw ci réew mi dafa am li nga xamante ne moom la ñuy déclaré déclaration yooyu nag gannaaw kayit gi moom ministre Alioune Ndoye dafa sol dàllam dem ci bërëb ba ngir xool carrément ndax li nga xamante ne moom la Navary di déclaré dëppoo nag li nga xamante ne moo nekk sur le terrain bii la visite nag ki ko dalaloon mooy directeur général bu port autonome bu Dakar gannaaw port autonome de Dakar beneen actualité bi nga xamante ne dafa soxal wàllu koom bokk na ci ñàkkum essence bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko fan yi ñu génn fii ci diwaanu Dakar ak yeneen gox yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir réew mi li ko waral mooy transporteurs yi nga xamante ne ñoo yëpp essence bi di ko yóbbu ci bërëb yi di ko tasaare ñoom nag ñoo banque seen loxo ndax liggéey liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy liggéey gisatuñ seen bopp te artu woon nañ bu yàgg te ministre bi tànqam lu leen moo tax ñu tànn ñetti fan yi nga xamante ne dañoo banque Aïcha mi ngi noonu coach Moussa il est très passionné il est très patriote et le comprend il est euh, ci nit ki ci boppam. Aïcha coach Moussa <laughs> Asma niñ ko waxee mënuñu woon dem te duñ ci wax euh, mooy carburant bi nga xamante ne nekkoon na problème pour ñi nga xamante ne jamono ji il sa déplacé et mu am ay jeexital yoo xamante ne yu doy waar yoo xamante ne def na ko donc mercredi 28 avril bi ñu dërmal na ko war na am waxtaan euh, avec les parties ngir rek xool naka la ñuy def ba ñiy liggéey ci wàllu bi seen liggéey gën a ñoŋ bu ko defee li ñu gis fan yi dootuñu ko gisaat asma leneen itam mooy Alioune ministre bi nga xamante ne moom lañ dénk wàllum pêche ak économie maritime def na nag lu am solo il faut le diir parce que dimanche bi passé dafa dem port de Dakar ngir rek xool débarquement yi ñuy déclarer est-ce que moo méngoo ak la réalité du terrain nee na nag li mu fa gis fii ak ay euh, bés yu ñëw incha dina ko eggee presse na def noonu mm-hmm. yenn saa yi ñi nga jiite nga nga ne saraax rek bett leen mm-hmm. ngir xool naka lañ tooge loolu da ciy am solo c'est très important mais mm-hmm. il ne faut pas attendre que qu'il y ait un scandale pour se mettre à jour wala se euh, update c'est ce qu'on dit il faut le faire tout le temps comme une machine comme un ordinateur ñoom ñëpp dañuy utiliser téléphone smartphone ordinateur il faut pas attendre que mbir yi fees di kiiwal boppam si ce n'était ça n'aurait été le cas de de cohérence googu noonu dañ koy def ci côté boobu il faut qu'on ait de la rigueur rigueur mooy tax yow nit ki da ngay jomm lu bëri professeur euh, balaa sa patron di ñëw sax liggéey bi da ngay bëgg mu dox et c'est ou bien ils n'ont qu'à aller faire le travail dont ils sont passionnés parce que quand on est passionné on a de la rigueur pour ce qu'on aime justement <coughs> donc ah. nañu am rigueur mais boo jëlee gynécologue yóbbu ko ca artisan ba kay fu passion bi di jógee <laughs> voilà loolu laa doon ah, bëgg wax. déet boo jëlee ministre koo xamante ne. gynécologue profession fa la nekk. nga yóbbu ko. nga def ko ministre de l'artisanat waaw te mu war dem fu leen nekk ci matron yaa ngi loolu kay dina xaw a dina xaw a kii de. ah tu as tout dit wax ji yëpp loolu la. Ah, damay laajte rek. tant qu'ils ne mettront pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Hmm. jamais ñu développer. économie bi ma ko doon dox ça commence par soi-même. Hmm. économie bi mu dem dellusiwaat ci yow ndax nga mën a nga mën a gis sa bopp ci économie bi. ayca en tout cas mi ngi noonu ci kanam dinañ ko yaatal gan ñi ñëw tey xam ngeen ni gan bi bu ñëwee on va ressasser justement recreuser ce cette problématique qui tourne autour de l'économie euh, qui tourne na tour. Euh, <laughs> non non loo xam ne doo ko bàyyi mu jàll da nga koy wax yàpp xaj bi seddee soow. waaw maa fi muskila kay tu parles arabe. à ah, tout à l'heure mais moi je suis arabe Asma Khadija. de nom ou de. yàlla yàlla yàlla yàlla yàlla mais ma mère est métisse libanaise. yàlla ruux il a ah waaw kay mi ngi wokk Aïcha mi ngi noonu merci. merci bien Asma économie géej la kenn mënu koo jeexal yenn saa yi rek ñu tànk si benn kopp naan bu subaa ñu naanaat leneen Asma. am na solo Aïcha en tout cas merci beaucoup. amatina gan gi ma doon ah annoncé tantôt ah je vois des messages on m'envoie en inbox en me disant tu es très positive aujourd'hui oui parce que ça a une cause on reçoit. Sankara Mbaye euh, qui nous vient fraîchement des États-Unis moom itam dana ñëw toog fii ñu daal di laaj euh, bokk ak moom xalaatam euh, ci situation du pays gisoon nañ ko bu ñu jàppee ki nga xamante ni moom moo di naataangoom ndaxte tous les blogueurs ñoom ay naataango la ñu ci fële di Ousmane Tunkara moom itam comme nag États-Unis la jóge te États-Unis la xew bu ñëwee mu gën ñoo nettali gën ñoo wax li nga xamante ni moom moo di situation bi foofu ak li ni mel kon Binta Ba maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax daal di ko dalal. voilà Asma ñu joxante rendez-vous rek jeudi incha allah. ayca release today at www.mikeys.com. Aïcha mi ngi noonu kon nag euh, Sankara noo def. asma maa ngi sant sama sama sista yaa ngi cool. maa ngi nice naka yow. maa ngi nii rek. ani daba. maa ngi fa di lakkale. maa ngi fa di lakkale rek daba mbay. <laughs> macha allah. Mhm. ça va bienvenue. thank you thank you. maa ngi sant di gërëm ñi ma fekk ci plateau bi balaa dara nag maa ngi sant sénégalais yi. di gërëm sunu sang bi Serigne Mountakha Mbacké ak kilifa diine yépp mhm. di gërëm tous les sénégalais de l'extérieur tous les africains de l'extérieur di leen wax ni je suis de tout cœur avec eux. Mhm. Euh, maa a far. dëgg la. Mhm. te muy dëgg euh, dafa am loo xamante ni déjà y des rumeurs comme quoi ñëw nga Sénégal dañ la jàpp ba kenn sonalu la. waaw euh, non sonaluñ ma nag mais c'est un peu triste et neexul ci xol góor yàlla bu tolli ñun ñëw ci suñu dëkk gaa ñi jàpp ñu di ñu pamti pamte te defuñu ko à l'aéroport même. dafa neexul ci xol daal. Ah neexul ci xol ah oui pamte pamte ci comme nga génn aéroport yor say bagage ñu ñëw direct woo ne la droitel nga droite ñu génne say bagage ci mbedd mi tas ko manqué leen de respect. c'est ça ah le problème quoi yes yes. en tant que sénégalais. et que li ci gën a doy war mooy ça presque more than ten years plus de douze ans dix ans may voyager di dem di ñëw fépp ci monde bi. Mm-hmm. mais il a fallu que mu commencé di wax ci problème mu dëkk bi rek loolu arrivé ma la première fois. te yàlla. Mhm. kon maanaam daal nekk patriote sax léegi dañ la koy tere. ah doy na waar daal ñoo ko gisandoo. Hmm. Mhm. Ah. tas say bagages ci aéroport bi ci ci non pas aéroport bi ci mbedd ci tali ah oui donc ça euh, xam naa Sankara ñëw na donc du coup a ramené quelque chose lu muy lu muy ramené Sankara di doomu géwal lan lay ramené lu dul jàmm waaw <laughs> ah. ah, ci dëkkam ah mbay ah. mi ngi noonu euh, faaw ñu waxtaane mbirum ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Tounkara mi ñu jàpp mhm. ba pare nag daa di euh, wax ne itam acte de terrorisme la nekkoon di def def yéen naka ngeen ko dundee on t'a vu euh, euh, nga daal ci yoon wax ne kii du terroriste euh, ak li ni mel lan la mbir mi nu mu fa demee bay tàbbi ci ay affaire terrorisme ak li ni mel waaw li may wax rek saa su ne c'est triste c'est triste et ñaaw na trop mhm. bu ñu demee ba sunu gouvernement yi di di di sosal sunu seen i doomu réew mhm. ñëpp xam nañu Ousmane Tounkara du terroriste terroriste kenn du ko kenn du ko défendre mhm. you mais li ci métti rek mooy ils sont en ñi ngi jouer benn rôle boo xam ne rôle bu salté bi nga xam ni tôt ou tard ça va affecter les Sénégalais. Mm. même ñi nekk fii ak ñi bëgg a am visa bëgg dem mm-hmm. aux États-Unis mm-hmm. par le yes yes mm-hmm. parce que boo toogee def nga ko asson Diouf saa a réussi nga ne c'est un terroriste ñu dem jëli ko FBI xool ni du terroriste ñu libéré ko procès normal bi mooy FBI bu la jàppee xool li ñu lay jiñ du dëgg dañ lay jox bu fekkee da nga may problème këy dañ lay jox ICE mooy immigration foofu Assane Diouf jàll na deuxièmement bi ñu def ko Ousmane Tounkara woote ndax moo maanaam yi fi xewoon biir Sénégal ñi ñuy woote coow li bari Ousmane Tounkara def live comme ñëpp ah ni ko ñëpp yëgee woon ñi ko ñi ko ñëpp doon sentiré you ñu woote ne c'est un terroriste gars yi dem fekk ko këram jël si ko biñ ko jëlee xool ni li ñu wax du dëgg ñu daal di koy libéré jox ko bu sa këyit xawee am tuuti problème dañ lay jox émigration loolu mooy procès normal bi mhm. mais c'est que li ci métti mooy le fait que ngay accuser ay doomu Sénégal terroriste l'état du Sénégal c'est honteux. dafa ñaaw. Mm-hmm. dafa ñaaw trop trop trop te teguñu ko fenn lu dul seen nafsu bakkan te loolu ça va affecter les sénégalais tôt ou maanaam kon maanaam tey xëy na sénégalais yi fay dëkk wala yi nekk fii di sàkku dem foofu xëy na ñu xoolee leen bëtu potentiel terroriste yooyu nga xamante ni seen njiitum réew ñoo leen ko njëkk waaw bu amul benn erreur bu ndaw bu ñu jàpp ci benn sénégalais ci mbiru terroriste rek mm. Afrique américain yi bu ñu leen jàppee rek c'est fini dañ naan kon ñee li ñu leen ji ñëpp dëkk bay terroriste lañ ça va affecter les étudiants yéen ngeen xam ne seen doom yi dañoo nekk fii bëgg a dem jàngi mm-hmm. à l'étranger dem États-Unis jàngi dootuñu leen mayti visa mm-hmm. war a yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a dem commerce jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg a dem faju ji suñu yaay boo yi ngeen xam ne da ngeen a bëgg a dem faju ji dootuñu leen bàyyi ngeen faju ji aux États-Unis parce que seeni parce que seeni seeni gouvernement mm. ñoo xam ne dañu légitime ñoo leen taxé des terroristes et de cela li ci gën a doy waar ñoom mais ñoom seen doom yi ñu ngi nekk dans les plus grandes universités seen doom yi ñi ngi baax ñi ngi sant. Mhm. léegi ñun les baadoola nag ñun ñoo ndara am problème boobu. Mhm. Mhm. en tout cas depuis comme tantôt hein, on est revenu déjà dessus mooy depuis l'avènement Assane Diouf euh, Sénégal mi ngi euh, fu ñu ko teg cest dire est-ce que ci kàllaama gi la wax dafa menacé de mort lan la def euh, lu ñu mën a woowee acte de terrorisme ndaxte comme tantôt ni nga ko waxee dañoo gis sur la toile mi ngi doon wax xëy ñoom dañoo xam la ca suuf lu ñu xamul léegi yow quelle est la situation aujourd'hui aussi de Ousmane Tounkara tamit euh, euh, lan lañ ko jàppee concrètement quoi ce sont ces propos qui sont terroristes euh, non non non que situation actuellement moom mi ngi sant nee na mi ngi gërëm sénégalais yëpp mi ngi gërëm africain yëpp mhm. parce que gis nañ ni ko ñëpp taxawee jabaram tamit awa ndaw mi ngi gërëm ñëpp mi ngi sant ñëpp mhm. mais problème bi mooy aux États-Unis boo xawee am tuuti problème mu këyit laa faa passé maa ngi koy wax maa ngi naan képp koo xam ne activiste nga nga nekk à l'étranger di wax arrêtel nga dem ba nekk et euh, en mode régulier nga soog a mën a génn wax parce que actuellement ni euh, li ñu téye Ousmane mooy dafa am problème mu këyit loolu rek la hmm. mais xam nañu terroriste bi ñu ko ji bi ñu ko terroriste ko tëj prison biir biir New Jersey. Hmm. loolu daa am terroriste dañ lay yóbbu Guantanamo Mhm. terroriste duñ la déport Sénégal Amérique dafa signé benn benn convention boo xam ne fépp fu terroriste nekk ci kar àdduna nañ ko indi Amérique mhm. mais terroriste kenn du ko delloo Sénégal c'est que le fait que état Sénégal di fooye moo boobu pour rapatrier les Sénégalais c'est ça le problème ah. li mu ndara yàq après man loolu moo may déranger danger bi yes bi ci nekk merci man ci ay propos dama dégg mu ne gorom bopp gorom dafa bokk si ñi ko woo ñi ko boole ba ñu jàpp ko loolu am na mais dinañ def ay révélation bientôt incha allahu rabbi mais moom actuellement États-Unis li ñu ko téye ñàkk am këyit mu nekk ci dëkk bi li ko jàppee. amul leneen lu dul loolu. parce que këyitam dafa mel ni dafa jeexoon. waaw këyitam dafa jeex na yes. exactement dafa jeexoon ñu waroon ko renouveler loolu moo tax ñu téye ko. ñu profité de cette occasion c'est bas. c'est bas c'est bas c'est bas ñaaw na trop. en tout cas ñaaw na trop Asma euh, ça montre que liberté d'expression bi dafi des. bu baax que aussi yéen ñi nga xamante ne tamit parce que ñun tamit ci lañu ñu bokk euh, dañoo nekk ay doomu sénégalais. un État doit être crédible. Mmh. Un État qui accuse li nga xamante ne mooy ces citoyens de terroristes c'est bas et c'est méchant mm -hmm. et c'est vraiment c'est c'est grotesque c'est c'est comme tu veux comme li nga xam sax mhm. là ça joue sur la crédibilité tey jii de du, du Sénégalais lambda mm -hmm. aujourd'hui tu veux aller voyager tu veux qui euh, voilà un état mm -hmm. on doit être en mesure d'être digne de représenter le Sénégalais que nous sommes là où nous sommes donc aujourd'hui état bu la doolee loolu wax ne kat ñun suñuy doomu réew c'est des exemples pour tous les autres donc ça c'est un problème et comme euh, li nga wax il convient aussi vraiment dans la pratique. Mhm. Euh, di euh, xool tamit kàddu yi nga xamante ne moom la ñuy joxe wala la wax ci li nga xamante ne mooy internet bi. c'est important c'est important na la jàmm gën lu dul jàmm. mais loolu si moo terroriste boobu. Mhm. nañu jéem a éradiquer mu c'est une chose loolu c'est une c'est une chose mais point bi mu wax c'en mhm. est une autre. mooy que. bu ñu nekk porteur de voix mukk ba ñun tamit suñu monument ñu euh, nasaxal ko ñu manqué ko de respect wala ñu humilier ko publiquement parce que aussi on joue sur cette crédibilité étatique là parce que c'est parce que on est contre Macky Sall aujourd'hui moi je ne suis ni pro Macky ni pro qui que ce soit mais je contrôlerai mes propos et cela va de la tenue de soi ndaxte euh, ci kàlla loolu noonu opportunité booy may la pour que demain ñu mën la atteindre et que protection la boo xamante ni euh, professeur Danfakha boo mënee aaree sa bopp la indirectement c'est vrai dans un sens amuñu ñoom droit euh, dénigrer le Sénégalais à ce sens parce que ils ont une crédibilité pesante. c'est que c'est li nga wax dëgg la li nga wax moom d'accord naa ci pour cent man mi di wax ak yow faruma fenn. Mm-hmm. man ànduma ak benn politicien. man mm-hmm. société civile bi le peuple sénégalais l'Afrique. Mm-hmm. dans une manière générale moom laa àndal ànduma ak kenn. léegi li ma wax ci loolu mooy xam nga xeex la. bu ma la mënta sànni xeer yóbbante lay saaga parce que nu mu nu ñu mën a xeexee rek dañuy xeex ñun mm-hmm. on est des combattants mm-hmm. no matter on est des combattants de la liberté mm-hmm. jàmm la ñëpp bëgg mais bu ñu demee ba nga xam ni li ñu war a wax sax surtout surtout mooy bu ñu demee ba ministre ministre de l' intérieur. Mhm. toog naa ce sont des forces gis nga ñu ngi foowee ay mots yoo xam ni. ba pare di bàyyi mu jàll. loolu normalement waa ji waa dañ ko waroon a woo par mhm. force mu toog. et il doit démissionner. oui neexoon luñ ko ci. <laughs> le ministère le ministre de l' intérieur par force il doit démissionner parce que li mu wax. Ah. demain ou bien après deme bu ñu jàppee benn sénégalais à l' étranger. Hmm. ci mbiru terroriste c' est fini pour le Sénégal. moom lu mu waxoon sax. dafa ne dafa ne la la la ñoo nekk Sénégal ñoo defee émeute. ñu toog ci ministre euh, de de l'extérieur woote France 24. Uh-huh. daal ne ce sont des forces de dëggal ko keneen ki génn na ministère de la justice ne ce sont des lutteurs. qui de combat. président de la république génn ne je vous ai compris la jeunesse kan moo ci dul wax dëgg ci ñoom. Uh-huh. donc nag la question qu'on doit se poser c'est ça. dëgg la. question bi ñu wax ñoom ñett ñooñu kan moo ci waxul dëgg parce que kii mënul yat bi di yor yat bi di dóor kii yor cour bi di di dóor kii génne ok ma jox leen ndox mu sedd na ngeen toog ci jàmm. donc la manipulation il faut que ça s'arrête professeur il mhm. faut que ça s'arrête ñun dañu sonn man ci ci àll bi laa màggee ba may xale ba léegi maa ngi nekk aux États-Unis mhm. on veut revenir dans notre pays mhm. mais nii ñu koy doxalee nii nii nii nii doxul le monde a changé asma jàmm dooma ah. ah. jàmm la ñu bëgg jàmm la ñëpp bëgg mais lii nii nii nii seen doom yi nekk à l'étranger nekk fa dans les plus grandes universités seen jabar yi nekk fa bu ñuy accoucher sax bëgguñu nationalité sénégalaise américaine war a war a canadienne la ñuy dem wuti léegi bu ñu wëlbatikoo jël doomu jàmbur yi jox ay jakarta donc y a problème il faut que ça s'arrête Aïcha mi ngi noonu il faut que sa s'arrête boobu mooy tax ñu tàbbi ci euh, mbirum emploi des jeunes ndaxte tantôt junju nga ko waaye tamit tàbbi itam ci li nga xamante ni moom moo di la la la satisfaction des Sénégalais de la diaspora je pense que sur une échelle de dix vous êtes satisfait à hauteur de combien vis-à-vis du régime au pouvoir. de, de zéro. ah. Asma je te par rapport ak nga àdduna bi. boo avancé wul yaa ngi arrière ndax nit ñi dañuy avancé. Hmm. yow nit ñi ñu ngi wax la la nouvelle technologie de l' professeur wax na ko léegi mais Sénégal lan rek ngay lekk ceeb c' très dangereux. Hmm. Sénégal lan la ñuy proposé jeunes yi ay mbaam ay Jakarta mais professeur. la nouvelle technologie de l'information nga bëgg tey sa doom bi un Sankara a un Abdou Diassé ba nga xam ma nga nekk Koumpentoum mm-hmm. bëgg a conquérir bëgg a bokk ci ñi nga xam ne dañu am doole ci monde bi en Europe bi ou bien aux États-Unis bokk ci ñi nga xam ne dañu influencé yow nga koy jox mbaam war a Jakarta non come on professeur nañ waxante dëgg kon daal mm-hmm. Sénégal tampi waaye sénégalais de la diaspora tampi non tampi big time <laughs> Tampi big time. big <laughs> li doy na waar rek. c'est ah, ironique. mais c'est une honte pour eux ah. la de. Euh, euh, Asma dafa am benn problème boo xam ne. professeur dëkk. Hmm. dëkk kenn du ko fooy. waaw dafa am benn problème boo xam ne sunu nguur yi comprendre luñ ko ba léegi. c'est-à-dire que aujourd'hui internet dafa may beneen doole askan bi te ñoom au lieu ñu essayer di déglu di comprendre lan la ñu war a tontuwee ñu bëgg a noppiloo gars yi moo tax plus ñu bëgg leen noppiloo plus ñu radicaliser wu. c'est fini loolu mooy loolu mooy situation c'est-à-dire que ñi li ñuy wax yëpp euh, euh, diaspora bi. Mhm. jar na bàyyi xel du ay affaire wu caaxaan. ñoom mënuñu nekk États-Unis nekk France nekk feneen di gis euh, ñoom nu ñu fonctionner seen dëkk ñuy gis ne seen réew mu mel nu mel. ñu ngi ko nangu il faut pas l'accepter donc ça veut mhm. dire que il faut une autre une façon de faire une personne n'empêchera les gens. de s'exprimer sur internet. ah oui non moom mënul nekk. professeur adduna bi moo changé. le monde a changé. personne n'a plus le monopole de l'information. télé bi day wax. Sankara Mbaye génn fee yor portable am ëpp influence télé bi. le monde a changé. bi ñu tëjee ñaari télévision yi Walfadjri ak euh, Sen TV. internet bi da doxal mais gars jël ay presque dix euh, reporters moo am ci terrain bi. mais dañu koo doxal. dañu koo gën a doxal. léegi nag xëy ñoom nag catang lañ di bëgg a dugg parce que li euh, le respect se mérite c'est vrai il y va de soi mais président wala régime bi nekk fii war nañ mën a gën a font quatre États ah. sénégalais au-delà de la de la population au-delà de leur <coughs> régime à eux-mêmes il faut qu'ils comprennent que l'État c'est une continuité et que oh, euh, ci diggante collaboration yi nga xamante ni ñoom la ñuy am ak euh, xoolal bagage bi li doy na waar ah, ah ce sont ce sont ah lii ñaaw na ah léegi lii dafay tax doomu bitim réew mën ko sañ a def doomu Sénégal ndaxte ñun ñoo ko njëkk def suñu bopp il faut qu'ils comprennent que l'État c'est une continuité et donc la continuité war na élégant war na rafet war na décent ñun loolu la ñu xam quoi xamuñu lii quoi mais contrôle ma defe ne ci biir airu airu aéroport wala air bi lañ ko war a defee wala wala ci poste sax poste de police wala gendarmerie mais fii amul dara fii àll la mën nañ ci dugal lu nekk taxal ma. waaw c'est pour cela que ma def vidéo bi guddi sax. et heureusement qu'il y a les téléphones aussi. et heureusement qu'il a eu l'intelligence de faire la vidéo. oui oui. et que il est un influenceur très suivi. Mm. heureusement ah. parce que tout peut arriver liñ leen waxal rek yéen a yéen tamit. ba pare ba pare non ils sont gauche c'est-à-dire que maladroit. il faut aussi voir ni ñuy doxalee fii ak sénégalais entrepreneur yi fi jot a nekk ah. <laughs> parce que tey jii boo leen dooleelul doo dooleel ñi nga xamante ne mm. ñoo nekk ci euh, ci bitim réew tey jii boo demee ne da ngay def à la recherche de financement wala de d'investisseurs au lieu de cibler investisseurs sénégalais parce que y a des sénégalais yoo xam ne ñu ngi liggéey ku ci mel ni ñuy waxee il da nga dem sur internet nga xool ni muy dimbalee doomu réewam yi nekk euh, euh, États-Unis c'est parce mm-hmm. que bi problème bi amee on s'est intéressé sur la personne pour xool ne tamit da doon dimbali li amaa li euh, li nga xamante ne mooy ambassade bi waroon def moom mu ngi koy supplier di ko def di dimbali li nga xamante ne mooy ay ay concitoyens mais en tout cas c'est dommage qu'on écrase qu'on écrase ay doomi réew au lieu ñu leen di dooleel leen au lieu ñu leen di pousser pour ñu ñëw investir fi nga xamante ne état mënu fa nekk tey ji un entrepreneur sénégalais mën na fa yegg mën na indi ay emploi créer ay emploi mais c'est dommage que vraiment qu'on se sent plus sénégalais mais damay damay ñëw foofu unis absolument unis am na loo xam ne boo ko fa doonee no matter what dañ lay respecté booy dugal xaalis ci dëkk bi mm-hmm. maanaam boo fa nekkee entrepreneur ngay liggéey di am ay employé même ñaari employé boo ko amee da ngay am baat ca dëkk ba Ousmane Tounkara saa yoo gisee sëriñ si déplacé wu dem jógee euh, Sénégal dem aux États-Unis da leen di defal teraanga teeru leen tey bu ñu demee ba suñu association des sénégalais am problème foofu Ousmane Tounkara la ñu gis bu ñu demee ay booy yoo xam ni sax jàpp nañ leen war a ñu am ay problème ku fa mënti jigéen euh, ndax des fois ay mariage dafay am ñi ñi yi naw sëyi tas ñu bàyyi ndaw si mu struggle Europe euh, États-Unis meloon ni comme fii ku ci am problème mu fay solu Ousmane Tounkara ngay woo il n'est pas n'importe qui. Mm-hmm. ah parce que il a de l'influence oui. et de l'affluence donc xëy na ñu ne xaaral ñu teg ko tànk. waaye ni ko tegee tànk ñaaw na di. non ñaaw na mais nag euh, le monde a changé il faut qu'ils mm-hmm. arrêtent. Mm-hmm. te que loolu dama ciy insister. et que loolu nekkuñu sax loo xam ne dañ koy euh, dañ koy négocier loolu par force la parce que ñun forcé wuñ leen fal leen. Mm. président la magistrature la magistrature suprême bi fi nekk. Mm. ñun forcé wuñu ko fal ko. moo ñëw taxaw moo ñëw taxaw ne fal leen ma. joxuñu ko suukar donc bu la falee jox la sunu alal l'argent du contribuable mm. on a le droit